Des sacs d'oignons a grimpé à 11 000 francs CFA. Une flambée qui n'a rien à voir avec la disponibilité des le marché. yokkute bi moom lenn rek xam nga soble ñi koy importé actuellement ni bëriwul waaw ñi ngay importé su fekkente ni ah bu bëree dañuy jaay. Le prix dépend du marché et des importateurs. Par exemple, s'ils constatent que leurs concurrents n'ont plus le produit, ils fixent le prix en fonction de leurs accords. te mënoo ko teg di ko xool ah da ngay dagg sa xaalis jaay mais nag boo demee ba stock bi wala concurrence bi wàññeeku nga xam ne ñi ko yor contrôler nañ ko ah moo mënan ko yóbbuwaat jaay am ci dara quoi. Selon Cheikh Sylla, l'État ne peut rien faire contre cette hausse. Ah, en ce qui concerne la vente d'oignons et de pommes de terre, si un gouvernement prétend pouvoir le contrôler, C'est de la tromperie. Ils devraient préciser que ce domaine ne relève pas de leurs compétences. mooy li leen tële mooy ñuy wax nit ñi liñ man ak liñ mënul. un prix plafond devrait être instauré pour réguler le secteur. foofu nguur gi leen la fi mën a def mooy soble bi buy wàcc moom mu bàyyi mais nag bu yéegee mu leer ko ni. l'État peut établir un prix plafond et fixer les tarifs de manière à contraindre les importateurs à s'y lii la koy dikk mënul mënul mënu kon war na no mën a def benn taux boo xam ni kenn amul droit dépasser ko quoi. bien que le marché soit bien approvisionné en oignons le prix reste quand même en hausse. Cercila préconise ainsi l'instauration d'un prix plafond.